ñi ngi ñaan itam secteur bii nga xamante ni bi ci la ñu ñun ba suñu fédération bi état bi bayi ñu xel ba lépp lu muy doxalati mu boole ñu ci ndax dogal na borom xam-xam a ngi fi borom xalaat yu rafet a ngi fi borom yéene defar Sénégal fi bëgg ak suñu lu yéenam ñu jàppale ko ci kon loolu képp ku koy def war nga ci mën a boole boole war nga ñu mën a boole ñu jox la suñu yéene ak suñu xalaat ñu ànd doxal ko. ñu ngi ñaan état du Sénégal ak pandémie fi mu interpellé nañ ñu pour en tant que poids lourd en tant que secrétaire général poids ñu arrêté ànd ak ñi nga xamante ni dañuy war a arrêt def arrêt de travail deux jours ñu war see mën a ànd mais duñu duñ ci mën a ànd parce que li ñuy xëcc li ko gën a metti moo fi nekk muy Covid bi mais ñi nga xamante ni nag ñoo yore interurbain bi nekk ci àll bi. am nañu coono yoo xamante ni ñun yëg nañ ko mu metti trop ñuy lancer appel suñu état ñu bàyyi xel ñooñu ay doomi Sénégal lañu te man mii def naa tournée gis naa leen metti na mettiwaay boo xamante ni nii bu du woon ak Covid bi arrêt de arrêt de bi bépp oto buy taxaw ci buy yëngatu ci senegal di poids lourd dinaa la boole ci loolu nga taxaw mais mënuñu la ñu see boole parce que li gën a metti moo fi nekk. mais am nañu nag sañ-sañu def suñu déclaration pour wax suñu état très très rapidement nañu dimbali ci suñu naataango yooyu libéré leen pour ñu dem seen kër te leen leen war a dimbalee ñu dimbaleen leen ko ndax ñoom rek ñoo leen war a dimbali état du Sénégal. bokku ci ñun nag bokkuñu ci ñi contre état ñun bokkuñu ci bokkuñu ci na bokkuñu ci lépp loo xam ne jafe-jafe la buy indi ci buy indi euh, buy indi doomu aadama fitna ci biir réew mi. doxuñu ko waxuñu ko xooluñu ko gisuñu ko bokkuñu ci ñun lii suñu problème kay mooy nan nan la Sénégal mën a développé nan la doomi Sénégal man a ànde nan la ñu mën a amee li ñuy wut nan lañu ñu mën a amee suñu koom-koomu réew ba jàmm am fi kenn bañ a sonn kenn bañ a am benn jàqare kenn bañ a am benn jafe-jafe. économie bi war nañu seet ni ñuy def pour que ñu respecter li nga xam ne moom la autorités sanitaires yi. digle lépp lu nga xam ne geste barrière la masque yi raxasu bi taxaw vigilance bi am loolu dañ ko war renforcer sensibilisation bi dañ ko war renforcer mais nag nañu fexe aussi relancer progressivement économie bi suñ ko deful mën nañu jural beneen musiba bu mel ni mbas wala bu ba

suñu camarade Mamadou Ndiaye def na tourner ci espace CDO, na Burkina Faso ak camion moom moo secteur la camionnerie bi mu dugg ci acteurs du transport ay chauffeurs ay coxeurs yu sonn yu kon war nañu ni ñuy pour progressivement ñu ubi libérer transport waaye it nag ñu bàyyi xel bu baax a baax ci taxawaay bi ñu war a taxaw pour ñëpp mucc